jaajëf ndeysaan mi ngi noonu ñu ngi ci huitième combat de la soirée fii ci arène nationale ak Jamaïcain Jam Production muy combat bu neex bu Siteu écurie Mor Fadam la bàyyi ko waaye kii di Boy ko écurie bi nga xamante ne bii mooy Fass Ndakaaru arbitre baa ngi wax ak ñoom li laa mu nangu li laa bañ suuf la moo boole moo leen di te ko ci yoon amul dóore amul padde amul mbaxe amul fadde arbitre sifflé na combat bi ndeysaan tombeeg dimanche 13 août 2022 fii ci arène nationale 19 heures 22 minutes plateau même mais demul ku dégagement la plateau moo ñu woon ginnaaw na lay toog moom booy Bou lañ la jàkkaar lool combat bi coow li bëri na wax ji bëri woon na métti na yàgg na waaye nag li jot jot na bëri wàllum teen la ku ñoon ca ma nga yem Boy Plateau moo ngeen bu lu verte li Bou Siteu bu lu ñuul li moom lañ jàkkaarool moom Bou Siteu ñi ngi lewtoo ñoom ñaar waaye kurpañ amagul de Plateau daa bëgg a dem Plateau daa bëgg a dem lu mu bu demee daga na Leewtoo moom Boy palaato combat bi dàqu ci dóor mu daanu de maa la ko wax Plateau bu Siteu Plateau bu Siteu bu Siteu lañ jàkkaar lool Plateau même na dóor na góos génnaat Plateau xeex la indi ci combat bi mais bu daa bëgg jàppante ak mom bëre ak moom def ay preuve moom Boy Plateau arbitre bi bàyyi la ñu bëree Bou Siteu door na génnaat Plateau si tànki la jëm Bou Siteu yoru na daw nañ jàppante li mu bëggoon am na ko moom Bou Siteu la bëggoon ndax jàppante baax na moom moom Bou Siteu Plateau Bou war na am xëcc taxabal war na am xëcc zongole di ñaari phénomène di ñaari mbëri nga xamante ne bii laa ma ngi leen di bàyyi xel ci wax ci ci coow li Zongale ràcc na ko caxabal eh lu xew egg nañ suuf ñoom ñaar egg nañ suuf ñoom ñaar Plateau ak Bou Siteu waaye jugaan na ñoom ñaar Plateau da ko caxabal Bou Siteu ràcc arrière mu bëgg ko Zongale ñu egg suuf ñoom ñaar ñu ngi jege saako yi ñoom ñaar Plateau ak Bou Bou Siteu Plateau Bou Siteu à droite Plateau à gauche jàpp na ne ngeeñ moom Plateau lu fay xew lu fay xew Bou Siteu di ngay defee baaxul jàppoo pare bëgg a dóor xar na ko caxabal yëkkati dañuy bëre ñoom ñaar ñoom ñaar dañuy bëre bu Siteu Plateau dañuy bëre ñoom ñaar combat bi mu doy yomb ndeysaan Plateau bu Siteu jege nañ ñoom ñaar lan moo fay xew di ñaari xale di ay ndaanan lamb di leen ba caxabal na ko yëkkati bu Siteu caxabal daa sori bu ko yóotu caxabal kenn ko yóotu bu ràccee mën na la remplacer nga suuf nga nga wàcc plateau bu Siteu waaye di jaajëfal bu baax a baax borom daru suma xarit suma doom yaay maa ngi koy nuyu di ko jamu. di saya ñaanal dinko waaye saa Touba duñ ko fàtte sunu nit la mooy borom drapeau bi le 20 ak journée production Zongole Zongole remplacé lu xew daan na ko Boy Plateau daan na Bou Siteu Plateau daan na Bou Siteu Plateau ko daan ko waaw daan na ko jël bu rëy ko jël ngi noonu perpele daf na ko mu ngi koy yëkkati mu ngi koy yëkkati oh ndeysaan bu Siteu waaru na bu waaru na oh bu daanu na bu daanu na daal na ma mais l'essentiel adduna moom la victoire aime l'effort waaw nit loolu liggéey loolu ngay fayeeku non waaw mbir la parce que gars yi jàpp nañ te damay xee mais dama a bëre ay bébé ji nii laa doon kontagal ay double moteur billaay wallaay waaw di sant waa ñi waa Fass bële yow xam nga koo may jox gone gi xal non tay tay tay dibi la borom caajaay lii la ma ko waxee nag barke Sëriñ Tuubaa waaw xam nam jëli dara fu ma jëm pël nag may seet si namoon naa la tam gën nga sama koñ drapeau sëñ Bara Kawemaan nga jël na nan naaj ci nag nan naaj ci jàppul ci combat bi nan naaj ci moom sëñ Bara waaw sëñ Bara nan naaj ci nan naaj ci waaw yaay booy tamit jaajëf waaw la war na combat bi ndeysaan mi combat spécial de la soirée Fallou Kalando ak tas yaakaar tas yaakaar ngi door kor na ko jàpp na ko caxabal war na ko ndombo bitar bi da koy daan wala xale yaa ngay bëre Fallou Kalando moo féete à gauche Tass Yakar Songole eh lu xew daan na ko Fallou Kalando daan na Tass Yakar daan na ko daan na ko jël bu ay Tass Yakar Yakar ba tas na Yakar tas na Yakar bi tas na Yakar bi tas na तस्नयाकारम तस्नयाकारम oh ay waay lii lan la xoolal Fallou Kalando daan na ba pare waaye mi ngi ci ardo bi di faju dóor yaa métti dóor yaa métti dóor yaa métti ma ngi ca médecin ba ma ngi ca médecin bi di faju moom Fallou Kalando oh ay waay tas yaakaar tas nañ yaakaaram tas yaakaar tas nañ yaakaaram waaye fa